mais mais léegi. waaw léegi euh, xam nga euh, ci mbirum. jub ak jubadi. waaw xam nga bu ñuy waxee charia. waaw li muy li muy li muy pression bi muy teg nit pour ñu jub boo demoon màkk. wala nga dem ci yeneen dëkk détournement sàcc euh, yeneen ak yeneen ni ko ni ko ni ko ni ko religion bi di punir. Mhm. est-ce que loolu aussi taxul jub fi mu nekkoon mu nekk fa ba léegi est-ce que ñun suñu suñu suñu suñu jubadi. Euh, jëlewuñ ko jëlewuñ ko ci ci absence absence rigueur boobu par rapport ak religion bi par exemple ñu xam ne boo sàccee fii boo sàccee ñu dagg sa loxo boo reyee nit ñu ray la boo defee lii ñu def la lii est-ce que loolu absence boobu parce que comme dañu nekk ci benn république bu bu bu laïque est-ce que loolu aussi. Euh, waaw encouragé wul jubadi. république même bu fekkee dafa laïque. Mm-hmm. li nga wax lu am solo la. Mm-hmm. mooy gis nga euh, tolérance yi. Mm-hmm. gis nga ceetaan mi mhm. laisser faire yi mhm. nit dafa bëgg di def mhm. li nekk ci bakkanam bu ko wóor ne lii duñ ko tere da koy def da koy tey sunu yow miy dawal nii nii na xeeti dawal yooyu gis ni ci tali bi yoo xam ne bu wóoroon waa ji ne lii bu ko defee dana jël ci moom fukki junni dëgg la du ko def du ko def du ko def mu def ko jël ci moom fukki junni duñ ko dóor duñ ko xas duñ ko def dara du ko def loolu tax lislaam nga dégg muy sévère ci yenn yi mital mitil mitital ko lool ndax lan ndax bu jikko kenn yàqoo daf koy daa dambalee wàll société bi soo dee seetlu yooyu ngay wax yëpp fi ne bët bu set da ngay gis kenn moo koy def kenn kenn gis na akoon ah, kay lii kenn tërewu ko mu daal di ciy dugg keneen daal di ciy dugg moo tax gis nga fi nekk nii dëkk bi ni mel donc lay laïcité quand même am na ay inconvénients par rapport ak euh, ñun suñu suñu suñu kii yu bëree bëree bari sax nag yiñ ci mën a tudd. mooy ginnaaw dañu wax ne ñu kon nous sommes laïcs mooy diine ñun suñu yoon mën na ci bañ a nekk. voilà te bu ñu diine suñu yoon mën na ci bañ a nekk réew moo xam ne quatre vingt quinze pour cent quatre vingt dix sept pour cent ay ay jullit lañu. Mhm. léegi boo nekkoon ñun diine suñu yoon mën na ci bañ a nekk li muy jur fi nekk nii benn. Mhm. bu la gën a jege. Mhm. mooy ci séentu weer wi. pour um koor. séentu weer yi pour wor fi ne nun nun en tant que ay mënuñu ko rek régler.

bi bi muy nekk xale. Mm-hmm. ñu jàngal ko li mu jub. bu màggee bu dee ñu ne ko ku jubadee nii lañ koy lañ koy def wax nga dëgg. waaw loolu rek la waaye bu fekkee boo jubadee eh, kenn lu wax na nii lañ ku jub ku jubadi nii lañ koy def su boobaa jubadi moo gën a neex jub ci ci ci bakkan yi. te jubadi te jubadi sax en fait en réalité euh, religion yëpp a ko. yëpp ko bañ yëpp a ko bañ. waaw jubadi jubadi baaxul rek jubadi baaxul rek gis nga ferrailleur. Mm-hmm. ferrailleur yi. Mm-hmm. koo ci dégg mu dóor marto. Mhm. dafa nekk ci fer bu dëng. dëng waaw bu jubee waaw. waaw koo gis mu teg ko ci taal bi di jubbanti dafa dafa dafa yor bu dëng. bu dëng waaw fer yu jub bi kenn du leen faale. kenn du leen waaw nga dëgg te loolu de loolu de moom mooy dëgg. mais mais c' est c' est c' est important parce que ñun aussi suñu suñu suñu. li ñu boole moo bëri. si suñu réew yi euh, ay par exemple boo jëlee Sénégal li ñu boole mélange bi moo bëri ba nga xam ne. Mhm. Euh, euh, yéen ñi ngeen xam ne ay nitu diine ngeen te te damay wax tout temps que ni je ne pense pas que diine bi mënoo ko rek adapté nu mu la neexee parce que diine bi ni mu taxawee noonu la taxawee dëgg la te boo ko compromis yu metti aussi impact yu mel nii lay am si si si dëgg la parce que diine ji moom mhm. dafa ñëwoon nekk 2 plus 2 égale 4 léegi nag boo bëggee indi 2 plus 2 égale 3 da nga am problème waaw day ah, plus 2 égale 2 da nga da nga am problème mathématiciens yi dana sonn lool pour indi résultat wu loolu lu dëgg kon nag euh, ñun yooyu moonu moonu moonu gàllankoor ki jaar fii kii jaar fi kii def lii kii def lii kii def lii te kenn du wax ne ah li koy def nii kenn du ko def lu dul waaraatekat bi bu dee waar li muy wax booba ki nit ki day jàpp ne ki day waaraate rek. waaw day waaw day nettali. day nettali waaw rek su ko defee yow doo boo ci gisut sa bopp da nga naan gisuma ci sama bopp. am na ci ko xëy na bu déggee nga ne nangam baaxut mu def attention ah lii kat kon ëpp naa def du duutuma ko defati am na ci mm. waaye ndax ñëpp la. waaw du waaw ah. te am na dëkk yoo xam ne moo tax boo demee si yenn dëkk yi nga dem Arabie Saoudite nga dem kii nga gis que ni kii kii sàcc wala kii jël wala kii def leneen ak leneen li ko ciy xaar c'est tellement fort que du ko sa xalaat. waaw de xoolal sax fi ne ñun ñuy aju màkk nii. Mhm. wala boog ñun yàlla xéwale léeg-léeg ñu dem fa. waaw boo tegoon sa saag nii di julli mu def treize millions. kenn du ko laal ci mbuus nga koy def mbuus kenn du ko laal. Nous fini 10 fay nous faisons 10 génn yor ko jenn way dablaw ba jot ci 10 millions lol lol lay nek te ñooñu pour man ah. jël ah, millions ah. c'est pas parce que nous ñuko jël mais dañu xam daan ya très bien parce que nous boo jëlé sa loxo lañu wax nga dag soxla soxla lolu légui do ko jël voilà donc du sax sa jikko mais c'est-à-dire que c'est c'est répression bi mo radical té nak su boba wax ñu wax day ñàng nii rek waaye ban ngaa toog nangami at doo dégg kuñ faray doo dégg kuñ fa dag loxoom